waaw ndax bu la Serigne seex Serigne Cheikh mu Serigne Saliou woowee. jël ay ndigalu Serigne Saliou personnel di la ko jox. Ah. mooy maanaam kon lépp yow la. dégg nañu daal yàlla na la Serigne Touba Xaadimu Rasuul taxaw wéral la kàttanal la defal la jàmm. kontaan nañ jaajëf. dëgg la dëgg la. maamam jeeg ma. ndeysaan ndeysaan màggalu ah. waaw. ñu pare nag suba incha allahu rabbi spécial inauguration. jannatul maxwa jumaa ja nga xam ne Serigne Saliou Mbacke ko tegoon ci loxoy Cheikh Béthio waaw Serigne Cheikh nag ñëw jël ko teg ko ca loxoom moom ndeysaan pour mu inauguré ko ndam rek sëñ baa ngi na la waaw ñu ngi waajal ñu ngi waajal yoonu jàmm incha allah rabbi mais jëruñ Ousar dafa mel ni pare nga de. jëruñ nga de ah. ah. gars yi pare nañ de sécurité yi taxaw nii geen daaj bi ah allo allo dafa mel ni pare nga de màggalu ren moom da nga koo pare dëgg ah màggalu ren gi da nga ko ah Cheikh Seydina barke sëñ Bamba convoi bi day wax ni kii lu mu wax nañ ko nañ ko jël lu mu wax nañ ko jël ay waxam bu ko kenn bàyyi. ndax lépp lu wax ci sëñ Saliou lu mu xam. jumaa ji Serigne Serigne Saliou baa ngi nii bi Cheikh Béthio tabax. bi nga xamee ne nekk nañ ci di fi bokk di yendoo ak moom. am na benn bis boo xam ne yamb yi fii lañ jóge su fekk na fi man ak Cheikh bi. ak benn taalibe bi mu ñetti taalibe bi. léegi Cheikh bi ni ma léegi li ci fexe ma ni ko nañ bàyyi ci piyaan bi noonu rek mu toog mu toog waaye bu ñu jóg. waaw waaw waaw mu ni ma mu ne ma léegi ma ne ko ma man fu ñu jóg ma ne ko yamb yi mooy ñeenti njamb yi di koy ci jumaay Tuubaa ja dox seen service ba ba mu jeex dañuy dem seen yoon. yamb yi duggee ci côté bi jël jaar ci kaw bi. ah yàgg nga ko wax de. waaw yàgg naa ko wax de fi mu nii moom. leer na naññ naññ naññ naññ naññ ah ndax jumaa ji tey buñ ko unigré hmm? dégg naa eh, eh dégg naa ngaabu ngaabu ren waa ngaabu yëpp janatul maxwaa la ñuy màggale de dégg naa ngaabu dañ koy tëj de ratt nañ ko ba mu set wecc fi ñu de barke sëriñ ba dëgg rek kay mujj ah jannatul maxwaa du yomb ren <laughs> jëruñ caaw dafa mel ni dëgg gi leer na de. su mel ni dëgg gi leer na waa Ngaabu waa ñu ngay génnee mbóot ya de. amul kenn fu muy nga ci